الذي بالوجبان لأولي الآية طويل لي اليوم هذا الأجر مولاي والذي بالوجبان jërëjëf bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëriñ euh, Mourtada ñu ngi lay nuyu di nuyu njaboot gi fi nekk yépp di bokk yépp ni nga ko waxe mooy njabootuk sëñ Moor di sa njaboot di njabootu sëñ Fall di njabootu sëñ Gumba waaye di njabootu ñépp. Euh, nii tamit rek lañ ngeen ko daan defe saa buñ fi ñëwee du fii rek waaye fu ñu leen fekk nii rek lañ leen di fekk fu ñu leen fekk rek fekk ngeen dend ak seeni bokk ngeen ànd ak seeni bokk te loolu nit bu doy de la ay bokkam rek dafa amul bokk yu baax ñu ngi lay sant bu baax di sant yàlla it ci lim nu may nu ñëwaat fi dellu siwaat fi te yàgg ko def yàlla nañ ci gën a yàgg ak yéen euh, ni ko waxee it euh, ni ko waxee tamit service la euh, ñu ngi lay sant bu baax ci baat boobu nga ñu dimbalee mooy ñëw bi ñëwu service la ndax xëy na tey bis bu ñuy màggal la di ko màggale suñ morom njaboot ci kon ku fi ñëw ku ne rek jàpp nañ ne ñëw ci loolu nga ñëw tam jar ko muy ñëw ci màggal euh, ñëw ci màggal it ñu di ko def fu bare te fépp fu ñu ko def bu baax rek lañ fay wormaal di ko fàttali euh, mu mel ne kon suñu dee def léeg-léeg ñu woote ko mu ñu wuute ko ci yu bare wuute googu léeg-léeg mu niru ne xëy na loola dañoo ñurul fekk ci bis bi ci boppam néew na luñ koy dem ci yu bari dara luñ ci fekkee nag dem ci ndax lépp noo ko bokk ak ñi koy def ay bokk koy def di sunuy kilifa di sunuy bokk kon lu ci am rek ñaare danañ fay dem balaa bis ba bis bii tamit mënoon nañ ko def démb wala bërki démb waaye man maa ñëw ci bis bi kon ñëw bi du ñëw ñëw ci màggal wante ñëw service la ñu ngi lay sant ci baat boobu nga ñu réglé euh, ci des it euh, ñu di la ci sant ndax saa buñ fi ñëwee euh, xam nañ ne am nga am nga am nga ñu bare wante yow it ñu bari am nañ la wante problème bi fi mu nekk mooy fàttewoo sa bopp léeg-léeg boo amee ñu bare man nga ko tëyal sa bopp léeg-léeg bu la ñu bare amee mën nañ laa nangu ñaar yooyu bu dajee léeg-léeg nga fàtte sa bopp ndax ku ci nekk jëflanteeg moom dul yomb te loolu lépp kon dafa bokk ci loo xam ne lu yàlla di leen nit la kon ñu ngi la ci ndokkeel bu baax ndax lu am lu jafe la euh, di waxit ne saa bu ma fi ñëwee rek xaw ma seex tey lu tax muy wax waaye ajoor yi ma fi daan fekk dama daan bëgg a dégg seen kàddu ñuy loo xam ne euh, li ñuy wax fasaaxa ci baatu làkk yi ñuy làkk muy am élégance ci nasaraan wala muy fasaaxa ci wala xikma wala yu mën di doon ci xeetu li ñuy tuddi balaaxa ci wax fii boo fi ñëwee da nga koy gis bu baax li ci deseen mooy turi cosaan léegi da nga dégg gille wala ni nga ko waxee léegi yooyu tur yi ñuy tudd yi ci de turi naaral la rek parce que ay Omar ak Ali ay ñooñu bañ daataan dugg lislaam dañ koo fekkoon ñu am ko lislaam soppiwu ko kon yooyu tur lan la woon ah seen gille yeeg yeetit xëy na bu ñu ko soppee rafet tur baax na ndax suñu borom wax na ko wante ñun dañ koy bàyyi xel aayul dara nekku ci lislaam mënul waxul kenn ne ko boo tuubee soppil sa tur bëgg na nag turu rafet loolu tamit dafa ñuy fàttali cosaan li yu mel noonu moo tax ñu itam saa bu ñu fi ñëwee rek duñ fi bëgg a yàgg duñ fi bëgg a yàgg googu nga wax it bëggu defee wuñ ko barab bi bañ koo def waaye li ma la wax la euh, ginnaaw euh, yàlla def na nga am ñëpp ñëpp am la te nga tëye sa bopp téye sa bopp googu nag moo ñu tax moo ñu yitteel waaye bu fekkoonte ne li ña leen nangu leen la ca des téye nga leen te lépp yam ci say ngir yow rek comme ni nga ko waxee léegi kon bu boobaa sa bopp doo ko am te bu sa sa bopp moom boo ko ñàkkee rek ah ñun day xaw ma nu muy demee waaye duutuñu sawar sa bopp nag am ko lu lu xóot la du lu ñuy wax fii bu càgg ne da ngaa fonk sa bopp bu càgg ne nangam nangam bu càgg déedéet beneen mbir la mooy nga bañ a fàtte sa bopp bala nga am mooy la nga am nga téye ko kon moo tax ñun tam. ñu di fi sawar di fi ñëw ci service ci loolu di sant tamit njaboot gi ndaxit yaay seen kilifa te ay kilifa lañu bu fekkee ne da ngaa njabooti nag ay kilifa am na doxeen woo xam ne boo ko doxee surtout kajoor am na noo xam ne bu ñu demee woon du sotti kon nag yàlla na la ci yàlla dimbali te sàmm la loolu moo tax bu ñu fi ñëwee duñ fi bëgg a yàgg ndax xam nañ ne ñépp la bokk te nga bëgg a téye sa bopp kooku nag ka bëgg a dugg ci sa biir bu boobaa mën naa am mën naa ñàkk loolu rek la waaye fii bu ñu fi doon toog ba weneen waxtu mu ma doon sëñ Abdourahmane fekk nañu fii ak ñeneen ak yeneen te mel na bari ñu fiy ñëw ci ay kilifa te ku ne am nga ci yow cër waaye am nga ci moom cër te bëgg ngaa tey sa sa yëfi boppit kooku nag fokk mu mu muy muy mu yomb loolu moo tax ñuy def suñ ñëwee rek taxaw fi bañ ñépp xam ne service ñu fi indi màggal am na bari na ci màggal yoo xam ne noonu ni ne ma ko waxee rek lay defal lu ñu fi fekk rek te ay bokk nu seq kook ñoom xëy na ñu bari xamee wuñ ko noonu man nañoo jàpp ne sax fii rek laay dem teg màggal fekk yi ci des danaa dem seq ko ka ma ko seqal waaye jëmmi bés bi nag moom service rek bu dul woon service di màggalu kese mën naa amit du demee nii loolu rek la loolu it baax na ci kon ñi ngi gërëm bokki taalibe yi fi nekk yépp ak njaboot gi ngeen xam ne am ngeen seen yëf bopp ndax kat sëñ tubaa bari la na lool yàlla may na ko lool waaye nag daw ko sànni ku ci am ku ne mën naa mën naa rogalaat nag ba ba ba ba doo xam fa muy yem waaye nag kenn mënta lijjanti ba am ci te liggéeyoo ko kon nag li leen seeni waajur liggéeyal yéen njaboot gi yéen a tax loolu nag téye leen ko bu baax téye gi nag nga sàmm la nga xam ne moom nga war a def yam ca la nga war a def te di ko def defin bu sell loolu nag booba ba tey it nag dégguñu mu wax ñu kenn ci njaboot gi lu dul lu baax wala dégguñu benn yëngutu ba ci ñoom ñii di wax sax xëy na suñu deboor defe naan lañ koy def waaye mosuñu ko dégg ndax wax nag bu ñu la xasee ne da koy def te nga teñ leen a yaa cee juddu kooku responsabilité la du lu yomb xëy na nag bi ci ñenn ñi duggee jaxas jaxase ba ëppal loolu moom beneen affaire la waaye daal wax dëgg yàlla lu ci bari loolu ñu ngi koy bàyyi xel kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm mbokk yi fi nekk yépp nag jërul tudd euh, di ñaan yàlla bés bi yàlla eggale ko ci jàmm lépp lu fi nit sàkku yàlla na ko yàlla faj yàlla na ko yàlla ko yàlla na ko yàlla defal aajo ju fi yàlla ju fi nit indi tamit yàlla na ko sunu borom faj ci barke borom bés bi kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu